Abou tout le monde la jeunesse dans son entièreté engagé au ci pour retrouver maman Aïcha maman mourut le dimanche 26 à 20 h ma à Dakar de fa rencontre dit maman parce que il faisait 21 h et d'habitude les gens ils étaient là mina mo mama day dafa jëndi won sow depuis 20h man len non ça c'est pas normal té am na ma xamna dafa jaar ci xaritam mais bayiko bam ñow fi dafa bëgg commencer lo xamna nekkuton ci kum ma baye 30 minutes après man len li ça devient inquiétant alors ci la jëm gis jeunesse bek yépp diko wëri xamna mama n'est pas présente parce que moi que ne kat ni ñangi ci mbedd mi yeen ngeen nek ci biir ñepp su ko dem séti mama Aïssa li xew nak ci bir lolu dama laajte moo kan àndoon ñu dama ma ben xalé bi digum dekk fi mané xalé bi lu mu wax ñu né mom de dañé dañ ñoo bo fi mu gestu satul mama mané lolu loolu convaincre ma ma waxu dam sen kër fekk mook sen fami ñu tok mané ko yow ma laajte kan moy diw sax turam xawma ma ko won ñu ne ma mu ngi di tok mané ko yaa mama essé na mu jé ak a ngi koy wër foo mujjee gisee mu ne man ànduma woon ak moom dama jëndi won dama def jafé jëndi saw man ma def wave dimas ma leen wax de mooy dimanche après après magal benn wave i duub alors bi waxé lolu man la ko génnee ci process bi mané comme néna na àndut ak moom man na dem wuri sama dom ma dem directement à la prise def suma déclaration and ak ñëpp wa koñ bi ñi wër ba 4h du matin ba 5h bañu noddu gisu do dara le lendemain on se remet continuer de voir nous def nag may remercier encore de passage la presse ku ci mel ni sama xarit Tange Tandian ku ci mel ni sama frère des grandes Gran Gueule ñun ñëpp ñu def ci seen kem pour diviser l'information sama collègue de travail amul Ken ku des ku ci nekk jël affaire bi def ko mais plus on avance on voit que la chose devient compliquée on perd on perd de l'espoir ba démb nag démb sama waa kër

le lendemain matin muy tey ce matin à 7h30, demie fekk na au commissariat de Bari. pour rappeler aux policiers que li ñu waxoon il faut ngeen jàpp ci monsieur le maire nag damay wax dëgg te yàlla tax woo na ma ñetti même pour avec le le, le commissaire ça, moom moo exigé à ce que le commissaire me rencontre dans les prix brefs délais maa ngi ko ci sargal bi ma demee wax ak ñoom ñu bon euh, le commissaire n'est pas venu mais on verra après ma woo suma Benen. xarit boo xam ne seen naataango la muy beneen commissaire ne ko bàyyi naa de soupçon dimbale ma nga wax sa collègue bi ñu accéléré processus ci lañ xëy gis police bi ñii ñu ngi toog suñu salon gis police bi ñëw dugg si koñ bi jëli recueillir xale bu jigéen bi ak ay ay ñu dugg ci koñ bi mu ñu def reconstitution des faits maanaam fan la mbir yi jaar fan la commencé ba fan. ziare naa baax a baax jamono bi nag gis ngeen li nga xam ne mi xew ci réew ci ay faat ay nit ci anam yu ñaawa ñaawa ñaaw Aziz Dabala mi nga xamne ni eh, faat nañ ko ak wali ci anam yu ñaawa ñaaw japp ko jamante ko ay paaka mu faatu ci anam yu ñaawa ñaawa ñaaw nit ñi di ciow lolu di joy noppé noppeeguñu ñu ñi wax ak ay yeneen nit yi nga xamne ni faat nañ ci anam yu ñaawa ñaaw ki nga xamne am taxi man la woon ñi wax ne da doon dimbali ben jigen bu ay adresser karoon agresseur bi dóor ko bal mu faatu ak femme bi ngeen xam ne nii dafa demee bitig ba gis ngeen ne bi nga xamee ne dem na bitig ba dellu si waatu li nga xam ne nii jamono ji bari nag ci réew bi muy ay faat ay anam yoo xam ne nii ñaaw a ñaaw lay doon léegi nag li nga xam ne nii moo mën a saafara bii nga xam ne nii nit ñi ñu ciy faatu comme ay ginaar da ngay xeexee ñu ne leen diw comme ay nag ñuy faatu comme ay bëy maam du faatu faatu yoo xam ne ni bu ne la ay nit lañ sax doo ko wedd fi anam bi nga xam ne ni moom la ñuy faatoo ndax ñaaw jàpp sa ko nit jamata ko ay paar ba mu sëdd bu ci sa loxo ci koo xam ne nee nga sa xarit la woon ci koo xam ne nee nga sa xarit la woon wala nit yor euh, ab saagam wala ab pasetam lu mu lu mu ci mën di doon di dem nga jàpp ne kii yor na xaalis nga kar ko jamata ko wala nga ray ko ci anam yow nga xam ne ni ci anam yu ñaaw a ñaaw lay nekk ba pare yow la bëgg a toog nekk ci sa jàmm loolu ci boppam moo mënul tutawee wala ba pare nga bëgg a toog di continuer sa dund moo xam ca kaso ba nga koy defee wala ci bitti loolu ci boppam la ñu war a jëlee ci réew mi li ko li ko mën a dindi nag leen dong la muy képp koo xam ne nii rey nga nit na nga ko reyee la ak ñi nga xam ne nii ñoo rey kii di taximaan bi faatu nañu leen jàpp yóbbu leen stade Abdoulaye Wade la ñëpp teew nit ñëpp teew ñu tër leen rend leen comme ni ñu rayee nit ñi ñu rayee leen noonu bu ko defee sénégalais yëpp dinañ gis ne ku ray nit kat fii ci réew mi te tay ko ni ñu la rayee noonu lañ lay rayee ndax lii sax paase na ak tayef ni ñuy rayee nit dafa paase ak tayef sa moroomu nit moo xam da ko yaakaare ne am na wala nga yaakaare ne kii kat toll na fenn wala denc na nàngam wala nga een ko rek ray ko loolu ci boppam moo fi war a jóge indil rek wala nga meral ko dara rek rey ko ci anam bu nga xam ne anam bu ñaawa ñaaw lay doon képp koo xam ne nii reyati na nit ci anam yi nga xam ne nii moom la ñuy reyati ni jamono ji ak wala sax anam boo ko mën a reyee ku reyati nit ñu tër di gis ñu rey comme na ko reyee bu ñëpp dinañu am jàmm mais jamono bii li nga xam ne nii euh, mi ngi mi ngi mi ngi gën a bari ci réew mi muy rey nit bi sa moromu nit gën a ko tënk muy bari fetal wala paaka ak loo ko mën a dóor ba mu faatu rek nga tay ko loolu dañ laa war a rey comme ni ñu ko reyee dañ laa comme ni ñu ko reyee ñii nag di do- di jooy seen doom bi ci anam bi nga xam ne ni moom la faatu metti na leen loolu wër nañ ko ñoom ñëpp lu nañ daj nañ ko ci ngir gis ko euh, am na benn femme bi nga xam ne ni dëkkandoom la woon moom femme boobu yëkkati na ci ay kàddu ginnaaw bi nga xam ne ni kii di papaam wax na dañuy déglu ji femme boobu kàddu yi nga xam ne ni fësal na ko moom nag nangu na ñu indiwaat peine de mort peine de mort fii ci réew mi képp koo xam ne nii rey nga ñu rey moom d' accord ba jot na koo ñaan kii di président de la république di président Bassirou képp koo xam ne nii reyati nga ni nañu la rey ci anam ba nga xam ne noonee nga ko reyee waaw na nga reyee nit ki noonee lañ lay reyee moom na kàddu yi nga xam ne nii yëkkati na ko ca kàddu yi la parce que dem nañ ci guddi gi déclaré ko police mais police dañ ne da duñ ko duñ ci def dara tant que 72 heures jotul. xam nga loolu aussi tamit loolu tamit dañ ci war a xoolaat bu baax parce que 72 heures c'est pas normal du tout. doom bu réer. sa gisoo sa doom wala sa rakk wala dara nga ñëw déclarer police ñi nga xam ne ñoom ñoo la war a jàppale ñu ne la 72 heures nekk mën na ci xew. loolu loi boobu dañ ko war a changer ci yoon. dañ ko war a changer vraiment parce que du yoon parce que dans 72 heures lu ne mën bu ñu defoon descente. descente moment boobu bu ñu ko defoon ci koñ bi amaana xale bi du dee. nga jàpp ne négligence daf ci xaw a am. si si da ci am parce que tamit 72 heures c'est trop 3 jours ci xale bu réer. xamoo ci ban ci ci yan fànn la ne ci yan loxo la nekk nga da ngay toog ba 72 heures nga doog ko wër loolu war nañ ci xool nañ ko xoolaat bu baax a baax c'est pas normal du tout maman nag mu nekk xale boo xamante ne quartier bi ñëpp la touché parce que booy xool tey quartier bi depuis affaire bi am nelawuñu lekkuñu naanuñu. ñëpp newuñu ci jàmm te aussi kenn nekkul ci sécurité parce que lii am ci koñ bi la am kon ñun tey lii ñu def mama tey suba mën nañ ko def sama doom suba mën nañ ko def doomu keneen ak keneen kon nekk na loo xamante ne tey ñun ñëpp ñu ngi ci njaaxare nekk lu doy waa maa ngi ñaan aussi état benn affaire loo xamante ne ñor na ma lool dañu war a def ku rey ñu rey la parce que tant que loolu ñëwul ci réew mi duñu am jàmm duñu am salaam parce que instant bi kenn nekku ci sécurité. boo xoolee gis nga semaine bi ni mu demee. c'est ça parce que boo xoolee ki ñu fekk ci biir néegam ci biir këram ci kaw lalam ray ko moom ak xaritam kon xam nga ne sécurité amatul. boobu noonu beneen xale ray nañ ko foofu ci ginnaaw raay. c'est ça parce que avant dañ doon wax da ngay génne mooy tax ñu def la dara mais léegi sa biir kër lañ lay fekk def la liñ lay def kon bu ñu indiwee ku ray ñu ray la foog naa lu bari dina changer. moom. d'accord nag ngir képp koo xam ne bii rayati na nit ñu ray la comme na nga ko rayee loolu rek nag moo ko mën a saafara président Bassirou Diomaye Faye loolu moom moo ci mën a jàppal li nga xam ne ñu ngi ci réew mi ndax nag dafa am lu nga xam ne nii dafa mënatut a wéy mënatut a yow ci ab semaine rek nga bëgg fee wàññi cinq mois ay nit ñoo xam ne nii ci anam bi ñu leen faate rek ñaaw na ñaaw boo xam ne doo comprendre te rey yépp nag ay rey tayef dong la ay tayef la ay tayef kepp yaakaar ni dara ñu ko tën wala nga bëgg a jaay bëgg a jaay nit doole nit di dimbali nga ne ko tën mu nekk ay faatu ñaawa ñaaw yu doy waar léegi nag loolu leen rek moo ko mën a saafara képp koo xam ne nii nit nañu la rey képp koo xam ne rayati nga nit nañu la rey buñ ci rayoon kenn nit ñeneen ñi si des duutuñu rayati tay ko loolu nag sénégalais yëpp ñoo koy maase di ko ñaan di sàkku ne képp koo xam ne rayati nga ne ci anam yu ñaaw yi nga xam ne ñu ngi koy nenn ko jamono bi ci réew mi nañ la rey ko defee réew mi nekk ci jàmm mi nekk ci jàmm nga xam ne ñu nag ñoo ñàkk seen bakkan ñi leen di ñaanal yàlla xaar leen xam ne ñu tamit jamono jii ñu ngi dox di nooy yor seen bakkan jamono bi nañu fagar ci seen bopp nañu bàyyi xel ci seen bopp bu baax a baax a baax a baax ndax jamono jii nag kenn muccatul amul kenn koo xam ne ni yaa ngi dox fii ci réew mi ci kaw suuf si mucc amul amul ndax jamono ji kenn xamatul euh, fan lañ nekk si man réew lañ nekk kenn xamatul ray ni ray gi jamono ji comme ay ginaar la ñuy rey comme ay ginaar di ray di ray di ray ray yoo xam ne kenn xamut ray lu ma doon ray yoo xam ne nii kenn xamul ray lu mu doon te ginaar yi sax jamono ji booy xool rayatuñu leen comme noonu ray bi ni mu fi bare nii sax rayu rayu nit moo gën a bari rayu ginaar ni booy xool te nag loolu dañ ko fay war a jël képp koo xam ne ray dina nit nan la yóbbu ba fa nan la ci stade yi nga xam ne nii mag yi la nit ñëpp teew ñu tër la rendi la comme ñu nga raye nit ñi ñu raye la noonu bu ko defee réew dina continuer di am jàmm loolu nag Sénégal yu bare bari sàkk nañ ko sénégalais yi na nañu loolu ne képp koo xam ne nii rayati nga nii nan la rey loolu moom sénégalais ci boppam ñoo ko sàkku ndax yenn yi boo koy xool ba ci biir bi xoolal yow da rey da jàpp sa moroom bi nii rey ko ci anam bu ñaaw ñu jàpp la tëj la kaso ne la dix ans lañ lay tëj wala sa ngir bu dund lañ lay tëj nga tëdd trois ans wala quatre ans wala cinq ñu génn la nga nekk ci mbedd bi di wëndëng yi di dajewaat ak ñi nga xam ne ni ñoom nga rayoon seen doom maam loolu sa xel du ko nanguwul muy ci wàllum yoon ak yëpp loolu xel donte yoon bi moo la may loolu da mais loolu ko yow nan lañ mën a rayee sa njab sa sa rak wala ah, wala koo xam ne da ngaa bokk ñu ne ñu ñu ne tëj nañ ko ñu tëj ko ba nga xam ne ni kii tëj nañ ko nga toog trois ans wala deux ans wala quatre ans nga ko mu nekk ci mbedd di wënde wënde mu leer na la yow kii moo rayoon sa mag wala sa rak loolu lenn rek moo ko mën a saafara muy képp koo xam ne nii rayati nga ni nañu la rey bu ko defee réew mi di nekk ci jàmm képp koo xam ne nii rey nga ni ñu rey koo xam ne nii xam nga ne boo reyee ni la li rey dina wàññi ko ci am na nag ñi nga xam ne ni ñoom loolu sàkku nañ ko nee nañu képp koo xam ne nii rey nañ nañu la rey sénégalais yu baree bari wax nañu ko kii kenn la ci ñi nga xam ne yëkkati na kàddu yooyu li ki démb wax na ne képp koo xam ne nii ñu teewlu kàddu yi xam euh, na ko ci wax ne képp xam ne rey na nit moo ko fi jëlee woon amoon na fi mais Laay Wàdd moo ko fi jëlee gis seen média bi ñun ñëpp niñ fi dajee ku nit tey ko gis nga ñi rey waaj yi su leen jëloon yóbbu leen stade Léopold tëddal leen ki reyoon ñu rey ko léegi rey yi wàññeeku maanaam da ngay rey nit romb ko ñetti fan génnaat jàkkaaroog moom nit ki day rey nit cinq ans lañ koy tëj mu génn jàkkaar yow ne la xujj loolu peine de mort bu amoon léegi mu wàññeeku laa la wax peine de bu amoon léegi gars yi lii foog naa ne ñëpp te foog naa ne bu ñu ko doxalee rey gi nga xam ne ni bu am jamono ji ci réew mi da bari lool nag dina wàññeeku lool muy ku rey ndax réew mi kenn muccatul kenn muccatul kenn muccatul te gars yi nag li ñu def bës nañu ko bàyyi li ñu def bës nañu ko bàyyi maam yow da ngay imaginer nit nga nekk ak sa ndey ak sa baay dem ba ñett nit xam la jàpp ñeenti nit nga ne man daal xëyatuma ci kër gi faaw ma génn wuti appartement nekk fa mel na man rek donte loolu baax na tamit. mais anam bi ñu koy defee moo dul jaar yoon ndaxte faatu kii Aziz Dabala faatu bu fekkoon ne seen kër am na ñeneen ña nga xam ne ña nga ca biir kër ga ñi mu demee nii mu demee du ñu demee mais yow da ngay commencé siiw ñaari nit bëgg la ñetti nit bëgg la nga commencé di yëg succès boobu daal di ne man faaw ma am appartement pour nekk fa nekk fa pour lan. yow ma fa nekk rek wéet bi nga fay wéet rek ku fa ñëw fekk la fa mel ni yow rek pour ñu néewal la doole day yomb pour ñu néewal la doole day yomb fi nga xam ne nii fa la nekkoon bu fekkoon ne nekkaan na nafa ak seen muy ay magam wala yaayam wala ñi nga xam ne ñoo ko jege lu ñaaw li nga xam ne moom lañ ko def du am lu ñaaw li nga xam ne moom lañ ko def moo waale loolee yëpp dara bu ci am comme nag li am am na ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi dund. nekk ci réew mi dund comme li nga xam ne noonu la assistant dund muy wàllum showbiz wala euh, wàllum musique ak waaye ak fecc yu demee noonu ñoom ci seen bopp nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax baax a xam ne nit fépp nga xam ne dëkk na fa dafaa war ay dëkkaale dafaa war am ay nekkaale yoo xam ne ni dañuy nekkal moom nag nit ñi ñoo ko war a xam te bàyyi ko bu baax a baax a baax a baax a baax ndax lenn li jaay sa bopp la lenn li rek raylu sa bopp la lenn li raylu sa bopp la jaa sa bopp la ndax ñii ñu ko def nii bu fekkoon ne jege na ay mbokkam wala ak xonam nii ñu ko rayee nii ci anam bii loolu du am ñu ngi koy ñaanal yàlla nag yàlla xaare ko àjjana te woyofal suuf si kawam te nag li nga xam ne ñu ngi am ci réew mi te sénégalais yëpp di ko sàkku muy képp koo xam ni nii rey nga nit ñu rey la loolu nañu ko indiwaat ci réew mi ku rey ñu rey la réew mi di béy di nekk ci jàmm rey gi wàññi ndax bi li am ci réew

donte dañ lay tëj ñetti at ñeenti at ñu tijji la sax yow loolu moo la ko loolu moo la gën bu ko defee yow ka nga rey mën nañ ne day perte ay bokkam perte ndax yow dañ lay bàyyiwaat nga jéem loolu nag bu fi jeexoon léegi rey di wàññi ci réew mi ndax jamono ji ñi nga xam ne nag faatu nañ boobaa léegi chaque jour bu ñu xëyee di ay nit ñu faatu ñoo ñu leen di ñaanal yàlla xaaral àjjana weefar seen kaw te lii nag ñu wax ci ñu wax ci. ñu wax ci ndax jamono jii mi ngi ëpp ay loxo